docteur euh, Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ñu ngi seen auditeurs yi waa Rewmi FM. docteur Cheikh Seck nga nekk secrétaire général bu syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social tey dañ lay laaj euh, déjà sa gis-gis ci li nga xam ni am na fële ca Kédougou di affaire euh, Doura Diallo bi nga xamante ni dafa ñàkk bakkanam ak euh, doomam ci accouchement bi mu doon amal foofule ca Kédougou coow li nag daal di bari trop lu siy sa xalaat waa li may wax rek moo di comme jullit leen rek dañ naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla lañu jóge te ci yàlla lañu yi eh, am partage tiis bi nga xam ni moo dal eh, soxna si ak doomam te aussi di métti lu borom këram ak eh, di di di di jaale di ko këram ak ñëpp ñi nga xam ni ay famille la ñu ay njabootam bee moom bu amee ak fu mu am Euh, ci hôpital defe naa ne kay faj la njëkk njëkk a métti dama gis ni damay xam ni toujours ñun ci liggéey ñu liggéey mosuñu jàngal loo xam ni pour rey la dañuy jàngal toujours na la ñuy sauver doomu aadama donc euh, donc loolu même bu fekkee ne am na faatu du doon nga xam ni mooy moo ñu gënal mais rek fàttali ci li nga xam ni moo xew Kédougou parce que li xew Kédougou moo di euh, ni nga xam ni moo lan ko moom lañ ko traité sujet bi xam nga tey nit taxawee def ci journal ne euh, femme bi dañ ko rey noonu laa ko mën a tuddee parce que mort atroce la. bu ñu waxee bay wax waxu dagg ak waxu reen bi xam nga loolu euh, wax ni femme bi aussi pendant trois heures de temps dafa toog di souffrir alors que yooyu yëpp dara amu ci xam nga loolu boo ko déggee rek parce que man mii lay wax nii man bi événement bi am man sama responsable régional moom moo wax moom parce que boobu. jàppoon nañ leen mu wax ma ni ah gars jàpp nañ ba boole woon nañ ci sage-femme te boobu bi may wax boobu pratiquement ay quinze heures yooyu jotagul woon man boobu maa ngi ministère sax de la santé man mi waxtaan naa ñoom ñëpp bu ñu expliqué ma gis nga jigéen bi nga xam ne moom moom la yàlla def mu ñàkk ba kanam ba mu nekkee jigéen bu wérul daana def li ñuy wax consultation prénatale di ko defee ci poste de santé bi nga xam ni sage-femme ba moo ko doon suivre def nañ ba ñaari consultation mais damay rappeler rek ne ku jigéen ko dafa amoon lu ñuy wax utérus cicatriciel utérus cicatriciel moo di mës na accoucher mais dañ ko opéré woon biir bi xam nga fu ñu opéré biir mi ngi mel ni rek nga am sa benn manque mu toj nga ñaw donc lu xotti foofu dafa yomb bu mu ko defee mu ñëw sage femme bi le 18 ba la passé jàppal date bu baax li ma lay wax le 18 ak bu ñuy gaañu defe naa ñeen jur xamal na ko ni yow de ak sa utérus cicatriciel bi am na ay risque su fekkee ni moment bi nga war a accoucher demuloo fi nga xam ne tey jii mooy centre santé wala hôpital nga xam ni foofu dinañ la mën a opérer wala en tout cas dinañ la mën a wax na ko ko wax na ko borom këram waa kala wax loolu kay defe naa ne avertir na la ci risque yi nga war a mën a jël wax na ko mu dem gisi ji gynécologue ci fan yooyu pour troisième consultation prénatale léegi nag lan moo tax kooku demul def loolu mu ko wax. ëlbatiku toog këram ba nga xam ne accouchement mi ngi bëgg a jot mu ñëw delluwaat ci poste de santé bi te poste de santé bi waxoon na ko ni fii ak lii la jot boo fi naree accouché ay risque am na fi waa tey jii kooku bu fekkoon ni toog na ci poste de santé boobu mu faatu fa lu nu wax gynécologue bi la ñuy téye parce que malchance bi moo di dafa tombé ci gynécologue mais sage-femme ba la ñuy jàpp tëj ko comme ni ñu jàppee woon saa femme yi nekkoon yi nekkoon yi nekkoon Louga. Louga. Mhm. du gis nga ba ni jàpp du sage-femme lañu tëj est-ce que gis sage-femme buy opéré sage-femme du opéré mais dafa fekk ni ba muy faatu ci loxoom la nekkoon jour boobu ba ni tëj ñan lañ tëj équipe yi nekkoon de garde suba équipe de ñu ngi responsabilité kay benn nit la mën doon mais mënoo jël équipe yi monté woon garde suba yëpp équipe yi monté woon garde guddi yëpp nga jëpp lañ tëj tey jii tamit heureusement pour sage-femme bi moom évacué na ko parce que njëkk nañ ko convoqué à la gendarmerie li tax ñu bàyyi ko c'est parce que faatoowul foofu ci loxom mais bu faatowoon ci loxoom xëy ne moom la ñuy téye et pourtant sa culpabilité n'est pas établie de la même gis ñu lu lu établir culpabilité ki nga xam ni mooy euh, gynécologue bi gis ñu culpabilité ki li nga xam ne mooy anesthésiste bi gis ñu culpabilité nga xam ne mooy instrumentiste bi di aide bi nga xam ne moo leen doon jàppale li tax. dafa am loo xam ni bu fekkee ni da ko koo dafa dafa ñëw nit war a accoucher mu nekk ci ay jafe-jafe lenn lan la wax premier protocole mooy fexeel ba nga sauver ñaari bakkan yooyu na nga sauver bu yaay ji na nga sauver bu doom ji waaye boo demee ba nga xam ne am na ci benn bakkan boo xam ne faatu na beneen bakkan bi faatuwul beneen bi ngay sauver par exemple bu ñu ñëwoon tey ñu indi ñu ne yaay ji faatu directement te ñu gis ni xale baa ngi dund dañuy ubbi biir bi génnee xale bi pour sauver ko loolu la protocole bi wax. mais fii bi xale bi ñëw fekk na yëpp yi selere na ba xëj na moom génne na doom doom bi bopp bi génne woon na doom bi kon génn mais bi doom bi bopp bi génne fekkoon na doom ji faatu na waaye léegi bu doom ji faatoo lan moo ci des du soobee yaay ji waaye mais nag soobee yaay ji nag ñun question course contre la montre la. est que da ngay topp di jàpp loxo yi xale bi di ko xëcc wala bopp bi pour mu génn bu mënul génn mënul génn xale bi mënul puusatul boppam parce que dundatul li la yoon wax da ni la da ngay da def li ñuy wax embryectomie maanaam da ngay fexe ba tàqale li nga xam ni moo nekk obstacle pour mën a euh, libérer yaay mais loolu loo mën a def mooy ubbi buir bi génne ko ci kaw wala nga tàqale diggante yaram yi nga xam ne moo seerté woon blocage loolu la gaa yi def mais loolu c'est une prescription médicale. kon dañu tàqale bopp bi ak corps bi loolu. non mënuma wax ni bopp leen tàqale dama ne la. Hmm. lu mu mënti doon parce que bugguma bugguma xam nga enquête lañ nekk. Hmm. journaliste ba wax ni dañ tàqale bopp bi moom la engagé moom moo wax loolu man waxuma ko man li ma xam dama ni dama lay wax rek. li nga xam ni hmm. moom la mooy protocole technique. du bu dee loxo la te xale bi dee na daggal loxo bi bu dee leneen la aussi dagg ko bu dee bopp yëpp loolu la loolu la prescription wax. dama ni prescription boobu loolu la wax comprendre loolu lañ def ñoom génne parti ba nga xam ne léegi libéré nañ maintenant li ci des yàlla ko yor nag ñaata nit ñooy accoucher di faatu te dama lay xamal nag gynécologue boobu nekk foofu. waaw ëpp na lu toll ñetti téeméer ñetti téeméer laa la wax trois cent ak euh, césarienne def na ko ba mu léegi. trois cent césarienne xam nga ñaata ñaata ñaata nit la sauvé ak seen doom. dëgg la. ah waaw mais loolu amul benn problème yàlla indi tolof tolof tey. kon te lii man gis mhm. gisuma ci accident gisuma ci erreur lu mu war a def la bu doon feneen nit loolu la ñuy def te bu amaatee malaat bu demee noonu aussi noonu la ñuy defaat. mais presse bi ngeen di attaqué pour lan la. non kenn attaqué wul ni ñoom ñooy. bindu dama lay wax attaqué wu ma réew mi non dama la attaqué wul presse. Mhm. dañu gis ni ETAC presse benn presse dafa singali agent de santé yi. Hmm. muy libération loolu mooy wax ji man du ma solidaire ak nit koo xam ne dafa nekk sama biir di def loo xam ne luy taal dëkk la taal laa la wax gis nga affaire astu soxna hmm. ay agression yu bëri suñu collègue yi am nañ ko. ci affaire astu soxna bi. Hmm. affaire astu soxna bi ay agression yu bëri da ngay ñëw nit fekk la sa saaga la ndey ñun ñoo waxoon gars yi situation bi tàndi na. calme leen te bu leen répondre kenn xam nga ki ni ñëw ñu la médecin moo rey moo moo rey sa sa sa yaay wala moo rey sa doom. Mm-hmm. mais kooku boo amul ngëm-ngëm wala leen mën ngaa jël paaka jam ko. donc gars yi bu ñuy wax nañu xam la ñuy wax libération seetlu li ma la wax lu muy génne toujours ci lu bon rek ci agent de santé ci agent de santé yi lay doon cest à comme lu baax dafa mel ni lu baax amul ci ñun. te loo xam ne daf ñu jaxale population bi rek lay def loolu rek lay génne. mais mais ma ma wax la affaire a soxna. Mm-hmm. nous on était choqués quand on a vu la photo. de la dame muy wane biir bi teg ci loxo ñun suñu moral ñun en tant que musulman rek laa wax de. Mm-hmm. xam nga mën nga wax nit ki dee nga jël forom nii sax ci kaw génne ko mais seetul ban photo lañ doon mettre en exergue premier jour moo ko dafa tëkkee man du ma leen jàngal communication mais ñun def nañ dem nañ communication du ay journaliste de mais on fait de la communication parce que on fait du counseling c'est-à-dire malade moom expliquer ko dafa am lu bëri loo xam ne malade même boo koy defal doo ko wax am na loo xam ne doo ko wax accompagné nit ñëw na ñu ne la dafa amee sida doo ko wax brusquement nit ñëw na ñu ne ko dafa amee cancer il est condamné dafa war a dee doo ko wax brusquement parce que dafa am information xam bu génnee rek la muy yàq moo ëpp la muy defar mais boo taxawee nga ni télé ñii dañoo rendi xale ñii da femme bi dafa dee dee atroce ku ko dégg sa xol du neex lan lañ ci jublu. mais mais lan moo tax problème de négligence bi di ñëw souvent. askan wi du du libération kese moo ko wax mais askan wi ñu si ëpp boo leen laajoon tey dañuy wax ni négligence dafa am ci hôpitaux yi ñu buri di nettali seen cas. non xam nga xam nga disculpé wu ma kenn. la. Hmm. xam nañ comment la communication fonctionne au Sénégal dañuy ñëw benn titre bu sens sensationnel nga de nga dem ci rajo yëpp nag revue de presse ku nekk nag yaa koy laaxee nu mu la neexee def ci sa ci faay. xam nañ loolu après réseaux jël ko mais dafa gaaw ñi def ko statut ngay toog jaag ñu naan la am na dix mille vues wala un million de vues ah mais mais du jàllul quel est le le plus rapide de faire la communication mais bu dee communication buy defar la baax na mais bu dee buy yàq safaan ba lay indi loolu mooy wax ni. Euh, ñu gis ni négligence bi wax. Mhm. dama ci delluwaat. disculpé wu ma kenn te foo dem day yàq dama ne la benn dama la bëgg nga xam ko amuñu obligation résultat ça veut dire que ñu taxaw man ñu ne malade ñëw na obligatoirement malade bi warul a dee wala feebar bi dama ko war a faj mu wér amuñu obligation boobu yàlla rek ko mën dinañ jéem nag ak li ñu jàngal ñu traité ko noonu mais dans tout cette affaire la à Louga il y a de négligence les gens ont fait leur travail comme il se devait. maintenant nag yéen yéen am doole yéen rek la ñëpp ragal les journalistes yéen moom mooy loolu même nguur gi sax ñemewu leen loolu tax donc yéen lu ngeen wax gongo bu ngeen taxawee nag daal ni aggravé ñu ah le gars là qu'est-ce qu'on oh, la je ne voudrais pas citer son nom. délibération responsable du journal mais lan lañ xëy na après moom dina génn def euh, joxe. explication par rapport ak titre yi dama lay wax man je lis beaucoup les journaux. Mhm. ëpp na vingt ans je lis la rajo damay suivre ay débat mais dama ne la musuñu taxaw di wax problème hôpital la Dantec ñu koy jaay nga gis mu defee prêté ci sujet musuñoo taxaw ñu ne la on a un déficit de personnel et des équipements mu taxaw ci wax ci mais chaque fois bu ne nit piqûre nañ ko piqûre bi raté. mu def ko à la une néew moom mënoo ko traité mais lu ñuy def à la une c'est parce que am na loo jublu et la plupart il a toujours les minutes du procureur c'est-à-dire quand on entend nos camarades ñu dugg ci bureau avec un inspecteur ou bien avec un gendarme mu leen entendre immédiatement ñoom lañ doon wax ci biir bureau ba ñu am ko on pose la question là ce journal ce journal là est-ce que c'est un journal comme yow ni nga amee liberté ou bien c'est un journal à la solde d'un groupe c'est des questions qu'on se pose fan lay jëlee mhm. PV audition wu gars yi voilà tey seetal journal am titre seetal journal titre am tey daf lay wax da lay wax minute minute yi nga xam ni audition démb yi xam na ko alors que ñun ñi nga xam ne ñun suñuy mbokk la ña fa nekkoon sax dañ leen tere sax ñu ñu divulgué ñu ko fan lañ ko jëlee et qu'est-ce que lañ ci jublu léegi ñu gis ni SAMES euh, yenn syndicalistes yi euh, gynécologues yeeg ñoom seen décrété nañ grève euh, mhm. ce que nekkul ni euh, maanaam médecins yi dañuy daw seen responsabilité moo tax ñuy décrété ay grève dem bay laaj sax nañu libéré euh, docteur Faye yow loo si xalaat euh, docteur Cheikh Sène. non dawuñu seen responsabilité je ne pense pas que dañu daw seen responsabilité c'est que dañu tiit tiit dafa jaaxle. et nañ ko wax cest à bu ne am na problème rek ñu dugal leen kaso loolu bu continuer ñëpp dinañ bàyyi loolu mooy problème bi tiitaange bi foofu la nekk ñaareel bi aussi ku nekk ak ni ngay analyser du ma juger syndicat yi bokkuñu syndicat bu nekk di nga assumer say responsabilités n'empêche que nag bu dee solidarité am nañ parce que ñun suñu collègue yi nekk dans la région de Kédougou comme dans la région de Tamba parce que le responsable de la région de Tamba est un anesthésiste actuellement hier démb rek wax nañ ko pour mu dem a Kédougou mi ngi foofu taxawu suñu camarades donc daa toute la région comme ni ñu ko defee woon Louga bu région bi yëpp décider d'une chose ñëpp dañ ko war donc ñoom ñu ngi ci ni boobu mais nu en tant que responsable au niveau national ñu ngi analyser parce que ñun dañu ci phase instruction la nekk instruction mooy dinañ entendre nit ñi dinañ leen déglu dinañ mën ne ay enquête enquête bi nag mën na nekk ci rapport d'autopsie enquête bi mën na nekk aussi ci ci audit audit à partir de là dina fekk euh, les gendarmes instructeurs am ay éléments yoo xam ne dinañ ko jébbal procureur procureur bi nag moom mooy toog xalaat juger ndax éléments yiñ ko jox am na ci éléments yu probants yu taqal wala am culpabilité sunu collègue yi nekk foofu ma yaakaar ne bo amul dinañ leen bàyyi et man yaakaar nañ ni war nañ leen bàyyi te dinañ leen bàyyi parce que lii ma lay expliqué yëpp bu dee noonu rek la demee. Hmm. gisuñu ci benn faute wala gisuñu ci benn accident amul. amul faute amul accident li ñu def moom la ñu waroon def parce que loolu la protocole bi digle leneen. voilà docteur Cheikh Seck Rewmi FM mi ngi lay euh, jaajëfal. ma maa leen di gërëm di leen sant yéen ñu permettre aussi ñu mën a éclairer. et di leen ñaan rek di ko ñaan di ko dénku. yow di ko dénku ñeneen ñi leen am na lu xewoon Rwanda ab rajo moo fa nekkoon ñu di ko wax rajo Mille Collines ñu yaakaar ne am nañ ci mën nañoo wax lu nekk la mu la mu indi moo di ay millions de morts parce que finalement dem nañ ba amplifier des situation yoo xam ne demewul noonu nit ñi di reyante seen biir tey jii am na loo xam ne nit mi ngi koy def ci journal et à chaque fois dafay monter population contre le personnel soignant agressé nañ ñu fi saaga nañ ñu fi menacé nañ fi bakkan dafa foor te gis nga saa yu nit faatoo nga taxaw ci tele ni nit moo ko rey mbokkam boobu bu amul retenu wala am na lu muy seet rek mën na dem dem fayu ñu dem rey noonu rey keneen bi voilà xam bu baax li yi def dama leen koy ñaan di ko dénkuwaat xëy na nag nit da dul am conscience te la muy def ma bëgg ni aussi le débat nañ ko yóbbu ci jafe-jafe yi nu am parce que nit aussi dañuy débrouillé yow rek demal bi ñu wax Louga dañ ni la ñaari gynécologue ñoo fa nekkoon bu kenn demee congé dañuy am problème ñu ne la Kédougou centre de santé bi benn gynécologue moo fa nekk gynécologue boobu def na trois cent césarienne waxuma la nag nombre d'accouchement yi def waaw loolu bu fekkee ni nit ki amul condition yu muy travailler juddoo Dakar gi yaroo dem à 700 kilomètres il a accepté de servir son pays parfois avec des salaires de misère et des charges de travail énormes parce que césarienne moom xamul ban heure mën ngaa tëdd ba guddi di nelaw une heure du matin ñu ne la jógal te da ngay ñëw nañu am compréhension ci li ñuy wax nañu am compréhension te xam ni ñun duñu yàlla duñu yonent bi waxuñu nag dinañ protéger kenn ba muy def lu mu warul a def nit ku nekk na ngay xëy waxtu du wàcc waxtu nit ku nekk sa àqulaay taala ak sa digganteeg sa borom na nga considéré que malade bu ñëw na nga ko considéré comme sa papa wala sa yaay malade bu ñëw na nga ko considéré comme sa doom ba la mu la jaral pour nga sauver vie humaine na ko def ci malade boobu. jërëjëf Cheikh Seck docteur Cheikh Seck may fàttali yow yaay secrétaire général bu syndicat démocratique euh, des travailleurs de la santé et du secteur social ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci sa euh, disponibilité.